wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliyahab bil mustafa xayra shiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew gannaaw bañ sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa yàlla ko fi yàlla bàyyi guddal fanam mottali ay naaram yépp mbokk yi ñi ngi ñëwaat ak yéen ci jotaay yi nga xam ne ñi ngi ko am ak yéen ci tàmbale safar bi ba keroog ñuy àgg ci bisu fukki fan ba ak juróom-ñett ñu war a dalal tey borom xam-xam di gëstukat waaye di bindkat ngeen xam ko muy sëriñ Mourtada Bousso di doom ci sëriñ Bousso Ilimaan mi ngeen xam di borom xam-xam ñu war a waxtaanee tey yoonu sëriñ Touba ak Mauritanie ku ne xam na ne yoonu Mauritanie étape bu am solo ci dundu sëriñ bi laataa ñuy dugg ci waxtaan bi Cheikh Mourtada dañ lay bàyyi nga ñi nga xam ne ñi ngi seetaan di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Omar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu équipe bu tedd bii nga àndal ñoom ñépp ca bàyyikoo ci kër gu mag googu bokk ci këri lislaam yi di C3S nuyu ñi leen yebal ñëpp ca rafetlu bu baax a baax seen jéego yi ak lu baax lii nga xam ne yéen a ngi ci yéen a ngi ñu ci woo. te lépp rek jëm ci toolub lislaam bi lépp jëmit ci lii nga xam ne ñoo ko bokk te di ko waajal ñun ñëpp muy màggalu Tuuba gi nga xamante ni ndigalul sëñ Tuuba la woon ndigal loo xam ne ci boppam la ko tàmbalee mooy da ko njëkk a def ba noppi nag digle ko sàkku nit ñi defle ko ko te ñaan yàlla lépp loo xamante ni am nañ ko ci ci tiyaaba ak yiw mm-hmm. yàlla nañ bokk lépp mm-hmm. yàlla sàmm bu baax a baax kër gi nga xam ne moo génne xalaat bu rafet bi initiative bi mm-hmm. c trois s mm-hmm. ak mboolem ñi ci liggéeyal lépp ci wàll gi mm-hmm. yàlla yëkkati leen bu baax a baax a baax ca àggale leen foo xam ne yàq yëggu fa ci yàlla bari li seen i kem amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mourtada ci kàddu yu am solo yooyu di ñaan sa ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu te boole ñu ko sëñ Mourtada ñi ngi war a waxtaanee tey yoonu Mauritanie bi nga xam ne Serigne Touba mën nañu wax ne def na fa juróomi laataa ñuy dugg ci biir tukki bi ak la ca xew lépp lu waral tukki bi jëm Mauritanie. waaw ah, jërëjëf yoonu murtani moom comme loolu nga wax rek diggante Mauritanie ak sëriñ bi moom du lu bees lu yàgg la. Mhm. yoon wu mujj wii nag nga xam ne nee nga juróomi at wala boog ñeenti at. Mhm. da cee gën a siiw. Mhm. ndax mooy yoon wi nga xamante ni dañ ko faa yóbbu yóbbu fa boppam. ci waa sababu zahir suñ xam tubaab yi ñoo ko fa yóbbu nañ ko yóbbu woon Gabon ak réew yam jaar yëpp ba mu dem Gabon muy Conakry ak daaw meeg dëkk yam jaar yëpp dëgg la Gabon moo ci gën a siiw gën a yàgg waaye yoonu Murtani wi dañ ko faa yóbbu mooy yoonu siiw yi ngeen xam ne seriñ tubaa ak Murtani lu yàgg-yàgg la suñu mbokki gëstukat yi xam nañ ci dara li ñu boole woon ak Murtani bari na ci wàllu jàng xam-xam bii yaatu yàgg na lool suñ maam yu bare bare fa lañ jànge ji woon xam nga ne ñii demoon fa di jànge ñii di jànge ay naar yu nekkoon fii ci réew mi di leen jàngal mm-hmm. naa ci joxe misaal rek sëñ Tuubaa bi ci boppam jàngeen na ci ay naari gànnaar dëgg la nag du ci murtani fii la woon ci réew mi mm-hmm. ak keneen ak keneen sunu maam yu baree baree bare muy ñi nga xam ne ñoo war sëriñ Tuubaa ci wàllu waajuram yépp mm-hmm. yaayam ak baayam li ñu boole woon it bokk na ci wàllu ruux mooy tasawuf murtani ak Sénégal wuute wuñ ci leen aqida ashariya la ñuy jëfandikoo fiqu imam malik la ñuy jëfandikoo tasawufu junaydi la ñuy jëfandikoo tasawufu junaydi boobu it nag am leneen lu ci boolewaat ak waa Sénégal sax laay wax ngir mu gën a yaatu tarixal murit bii nga xam ne moom ci lañ tënku ñun ñi ngeen bàyyi xel ne ci sëñ Tuubaa la tàmbalee day mel ne kon la ko jiitu woon war ngaa mën a xam ci lu mu nekkoon dëgg la ndax tasawuf yàgg na fi dëgg la sëñ Tuubaa it am na waajur am na waaj ndey am na bàyyi ay nit yi xam-xam lañ ay borom xam-xam waaye environnement bi mu nekkoon muxiit bi mu doon dunde mhm. tariqa xaadiree lañ nekkoon te tariqa xaadiree boobu fa mu jóge jiitu na mu gën naa sori Murtani waaye nag Murtani la jaar doog a ñëw fii. dëgg la muy tariqa xaadiree. Mhm. Cheikh si Abdul Xaadir Jelaani ci la jógee. Mhm. Cheikh Sidil Muxtaar Kunti. ci silsila boobu ci la ñun moom la ñuy jëfandikoo. ak doomam ju tedd jooju Cheikh Sidi Mouhamad. jaare ko ci Cheikh Sidi El Kabir. Mhm. ngeen xamoon ci Cheikh Sidi Kabir am Mauritanie la woon. Cheikh Sidi El Kabir xanaa moo ko joxoon sëñ Samba Tukulóor. Cheikh Sidi El Kabir moo ko jox Samba Tukulóor ka. Mhm. bindal na ko sax ijaaza boo xam ne gis naa ko. jërëjëf Samba ka bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo gën a ràññeeku ci ñi ko andi andi woon fii ci ñu. ci wet gi ñu nekk. Mhm. mag ñi nag dëgg la ni ñu daan jëlee tarixa danañ ko jël ci kenn waaye fonk nañ loolu it di ko yeesalaat ci képp kuñ gis nga am silsila boo xamante ni bu jege la wala kuñ bëgg ceew barke waaye sàmbatu kulóor ka suñu maam jooju man sax ko sax Sidi Al Kabir bindal sàmbatu kulóor ka xam ngeen mm-hmm. yu tedd yi la bokk ci mm-hmm. ñi euh, nekkoon ak sëñ Touba la bokk ci njëlbeenu sëñ Touba mm-hmm. baayam bu ndaw la ndax moo maam Mor Anta Sali ay doomi ndey lañ la kon xam nga ne boo xamee sabab rek dootoo yéemu li ñu boole murtan yàgg na tax na ba sëñ Touba dem na fa ay yooni yoon mhm. yoo xamante ni bokkut ak yoon wu siiw yi nga xam ne moo tax ñuy waxtaane mhm. dem na fa ay yooni yoon mhm. yoo xamante ni leneen moo ko fi yóbboon bu njëkk jamono yooyu mu doon tukki tukkee mu yaatu yooyu nga xam ne da ngay gis ñi bind ci moom Cheikh Modou Bachir sëñ Modou Lamine Diop Dagana ak ñi ci bind ñëpp naan wër na toog na diggante boo xam ne da doon wër rek fu mu yaakaar lu baax dem na fa ni mu ko defee fii ci Sénégal noonu la ko defee woon ci ci ñoom gis nañ leetar yu bare bari yu tegtale jamono jooju loo xam ne da koy datale da koy dat dat la ci def dat boo xam ne yàgg na jiitu na sax muy dem ci géej gi mm-hmm. gis nañ way yum way yoo xamante ni boo xamee sëñ Tuubaa da nga xam ne jamono yooyu rek la ko mën a way dëgg la bokkut ak ni mu waxee ci ginnaaw bi mm-hmm. bi bi mu beroo dëgg dëgg dëgg beroo kii way way yoo xamante ni di tawassul ci lenn ci nit ñu baax ña fa nekkoon tarix al xaadiriya mm-hmm. gis nañ nit luy tegtale ci ne na ci yeneen tarixa yi fa nekkoon surtout nag tarix chadiliya ci waa kër Cheikh Babul Hamdi nekk naa ñoom ab diggante. ba ci yeneen tarixa yi fa nekkoon sax miin nañ ko tarixa siddiqiya ba fa nekkoon xëy na sax baam xaas lay doon rek ci chazaliya waaye jaxasoo naa ñoom lool Cheikh Mahamad Abdoul Hay ak mbokk yooyu yëpp tarixa tijaani ya nekk noonu jaxasoo naa ñoom lool lool boo xam ne jéggi na dayoo day man la sax moom ba ci yoonu mujj bi sax da ci gën na cee feeñ loolu continuer di jaxasoo ñoom tarixa tijaani ya ba nekk foofu waaye cosaan li mhm. day mel na Sénégal mhm. tarixa yëpp boo ko boole yi ñu fi jëfandikoo mhm. bu la neexee nga ne seeni cosaan jógewul Mauritanie waaye jaar na fa. dëgg la tarixa tijani bi nga xam ni mu ràññee ko fii ci réew mi. Mhm. Euh, ca sunu mag yu baax yu bare bari nekk ci. Mhm. xam leen ne ku ñuy wax Cheikh Mamadou Xaafis al mhm. di boroom xam-xam lool nekkoon ku ràññeeku. jàppal ne Afrique soowu jant gi. bokk na ci ñi fi njëkk a dugal tarixa tijani ya moom boo ko seetloo sax sunu mag yi tarixa tijani yi fi nekk. fonk nañ lool ay njabootam gi nekk Mauritanie dañ ko mhm. ziar ji at mu jot mhm. Mhm. dem naa fa ren rek ci ndigalul sëriñ bi fañ ko denc Cheikh Abdoul Hafiz moom fa xaw sori waaye daje naa fa kàngam yu bëree bëri ci tariqa tijani yu wuute nag ñoom ñëpp nag ñi ci doon yi tukkulóor waa ahal kër Seydi yeneen kër yi yëpp kon day mel na ñu delloo ci ñoom ci foofu ba tey ñoom da am nañ ci delluwaay boobu boo demee ci tariqa chagéli yéen kon loolu moo ñu booleel moom bu dee dem gi mu fa dem nag nga xam ne moo gën a ràññiku loolu dama ko jiit rek comme tamit dem gi nga xam ne nag moo gën a ràññeeku nga xam ne bu ñu ne sëñ Touba dem na gànnaar wala yoonu gànnaar wi loolu moom mi ngi amee rek ci ginnaaw bi mu jógee ci géej gi 1902 la fa jógee ci géej gi ay weer dong la fi am. Mm-hmm. delluwaat ko fa. Mm-hmm. sabab yi boo bëggee lu gàttal da nga naan benn rek la la ko yóbbu woon ci géej gi. Mm-hmm. moo ko yóbbu ci ji rek. yàlla kum may may yu bari. dana ko lëkk rek am nattu li ci gën a bari nag nattu bu métti sëñ ko kon xam na yàlla may na ko may yu baree bari. ca may yii ko yàlla mayit yàgg naa ak moom lool wax dëgg yàlla daanaka boo bëgg boo bëggee wax ci gàttal da naan da ko àndaale ci jamono ji ba mu ba ba mu amee la tàmbale mel noonu mhm. di ci feeñ ba mu nekk gone di jàng ba mu nekk gone gu ndaw sax ngay jàngagut mhm. kiimtaan di feeñ ci moom ba mu tàmbalee jàng mhm. kiimtaan yi di feeñ ci moom ni mu teel a géejoo xam-xam ba teel a lool ci amul ñaar fukki at wala lay doog a am kiimtaan yi di feeñ ci moom nit ñi niñ ko tàmbalee jublu lool yàgg na bañ nit ñi bañ koy jublu nii yàgg na loolu nag xéewal la gu mag a mag bu amee dana bari ñu ci jariñ waaye nag dana am ñoo xam ne benn gis-gis lañ ci am am na ñoo xam ne mbubb rafet dong boo leen ko daqalee ñu am ci gis-gis fiiraa gi dox seen diggante waaye loolu moom du dara mooy sunna yàlla noonu la dox doxale àdduna loolu moom moo tax moom rek àdduna noon rek lay doxee dëgg la ñaareel ni nga demee rek ni la ñu ñuy xoolee bu fekkoon ne jiitu woo nekkoo fenn kenn du la xool ba kenn di la jot a corrigé dara waaye mm-hmm. boo xooloon tey ñi nga gis ñu gën a bari ñu leen di corrigé mm-hmm. ku nekk ci kanam lay doon rek mm-hmm. am na noo xam ne boo ne bindoo dañ lay yërëm waaye kenn du la defal dara sëñ bi nag yàlla teel na teel ko jox melokaan woowu mu am teel a amub dayoo lool ci wàll yëpp nit ñi teel ko topp bàyyi ko xel ay bokkam ñoo ci jiitu misaal mi ci jiitu rek bi ñu dencee waajuram yi gone sëñ bi gone la lool dañ ko dencee ba noppi mag mu ne nga fa ay magama nga fa bàyyi mi ndaw nga fa kilifaama nga fa ci wet gu nekk di jaayam waaye gis nga ci jëmmi jotaay bi rek xamee nga ci ne mbooloo ma fa nekk ñëpp bàyyi ba doon am lu ñu sàkk ci moom mm-hmm. loolu kiimtaan la woon la ak yu baree bari nag jekkit ay bokkam mm-hmm. teel a xam cër fi mu jëm mm-hmm. ak cër bi ko yàlla jox ñu teel ko bàyyi xel ñu ñëpp sax teel a moom sax da jàpp ne boobu wooteegut wooteem bi noonu ko yàlla bind nag tax na noonu it bari woon loolu yu bari nag yoo xam ne fu nekk ñu fa doon jógee ñenn ñi rek xelu mu gàtt xamuñ ne yàlla ay mayam yaatu na mm-hmm. li tax marché bi ay bitig mën a dend mm-hmm. ñaari magasin yu mag ca ku nekk di jaay mm-hmm. mayog yàlla noonu la mel yàlla fu dara nekk moo ko fa def dëgg la wàll yi mën nañoo bari lool dend ca kenn du ci déranger sa morom ca ku ci ne ci yàlla rek jëm ku xam yàlla dëgg nag loolu du la jaaxal doo fiire kenn doo mere kenn dëgg la waaye nag na nga nangu ne la mu yor yàllaa ko jox comme ni la yàlla joxe li nga yor xamal ne fu a yàlla rek a mat mhm. am na ñoo xamante ni amuñ gis gis-gis boobu ci ñoom mhm. moo tax jaxase yi bari mhm. tuuma yi bari looloo ko sababoon mu jóge fii dem Gabon tuuma yu méttee ak yàq deram ak tuumaal ko ne day woote jihaad tuumaal ko ne day daaneel euh, sulutaat istimaar yeeg gi nga xam ne moo fi amoon jamono yooyu mooy waa colon yi ni fi nekkoon te jamtaloo na bu dee ci sëñ teel na am doole lool lool lool lool lool jéggi na day ñi ñi teel nañ ko jublu da ngay dégg rek ñu naan Mbàkke gii mu nekkoon njëkk ko yóbbu ci géej gi ñu ngi fàttali ko ziyaare bu fa mos a am ñi ñi di ko siyaare ji xam naa du sori siyaare Ashura ñu mhm. ko fekkee ñoo ko daan nettali mhm. dañ daan wax ne booba de sikki sàkkawuñ ne ña fa nekk ci kër ga di ko xaar xëy na gis gi sax du yomb waaye dana leen jiite julleeg dana leen def nangam ay téeméeri téeméeri téeméer jege nañ junni nit te loolu yàgg na tuuti sëñ bi mhm. ci géej gi ak la ko jiitu naka jekkit ba mu ne bëreet noonu la mel ba mu nekk Mbàkke noonu lañ ko toppee ba mu dem Mbàkke Kajoor bay wootee kiyam boobee noonu lañ ko toppee mm-hmm. Daaru Salaam gi mu njëkk a noonu Tuubaa noonu mbooloo mu bare baree bari ca li ci gën a wóor a metti mm-hmm. ci ñi xalaat mooy mbooloo mi ay mbokkam ñoo ci bari ay mm-hmm. ñoo ci jiitu bari woon nañ ci lool sëñ Bousso bi mii di jaayam daanaka doom yu bari boo xooloon liste ba jamono yooyu muy wane Tuuba muy wër Tuuba ca am ay jamono kenn gisu ko ñu ko doon wër yi ak ñoom ñoom fi njëkk a dajeel danga nga xool tur sant yi ci nekk rek boo ko doon xool da nga gis ne jegeñaale mi bari na ci lool kon day mel ne teel nañoo bàyyi xel mm-hmm. topp ko ci lool yàgg na lool dëgg la melokaan woowu nag tax na ko mm-hmm. ñenn ñi it nag si ko mm-hmm. tubaab yi it mënuñ koo wóolu mukk ndax xam nañ ne doole jiim am ak dogu gi bis bu ba taxawee ngir jógal leen dana metti dëgg la moom dana metti lool ca it rek mën naa am yuuxu jóge fu ñu ko foogewut ca la moo lu jam te lu war la xam nga ndax sëñ bi ni mu bindoo woon yooyu daal tax na ba tuuma yi bari ñu toog continuer di ko tuumaal tax na ba bi mu jógee ci géej gi tubaab yi décidé ne duñ ko fi bàyyi mukk ci àddina mu toog mm-hmm. dañuy sax xalaatoon nañu réew mu gën a sori mm-hmm. euh, mu dajeeg la ne lu xorom loo xam ne dëpp loo xam ne bokk na ci sababu si li fi génnee mm-hmm. kenn ku bokk ci ñi fi nekkaloon tubaab yi jamono jooju kuñ xam la kuñ xamu turam la kenn ba ci ñaar ba ci ñett sax ñuñ xam lañ waaye histoire képp koo xamante ne dañ cee def lu xaw a loo xam ne bokkut ak li ñëpp bëgg te yàlla dogal na bàyyi nga njaboot ci xëy na mën naa am ñooñu loolu seen yoon nekku ci du hmm. neex ngay tudd turu ku mel noonu daal ku def lu rafet a gën a neex a tudd ku defoon safaan yombut ngir sàmmoon hmm, hmm, loolu moom bakkaar la boo xam ne yoonu keneen néew ci wala suñu si oxra waaye ñuñ xam lañ ku dem ci yéen teer leen fekk ñu continuer di ko jaxase tuumaal nañ ko ne dafa am mos nañoo gis këram gu bi waajal ci daaru mbarnaan bi bi doog a jige-jigee jërek ñu fay indi bagage yi ñoom ñu tuuma ñu gis ko ne bagage yi ay ngànnaay ki xeej la yu muy waajal bari na doole loolu ngir dem xeex ak tubaab yi mhm. tax na ba bañ tàmbali nag di ko woolu ak bindanteek moom mhm. leetar yu tàng nag yoo mhm. kenn mënu ko gis yu tàng lool sax bindanteeg moom di ko wan ne ko suñu munu kaay jeex na fi ñu jaar ak fépp ndagam yaa amati jom bu ñëwaatee tey de dana metti ci yow am na ci leetar yoo xam ne metti na lool boobu dañ koy woolu wan ko ne ko ñiñ ko booleel di ko ñëw dañ ne la ni ngeen ko indi moo xam comme li àttekat di wax léegi rek moo xam muy dund wala wala dundut. lu mën a xew na ñëw dana ñëw. Mm-hmm. moom buñ jë buñ koy ñi koy jël si faat ko taxul leen a jóg waaye ñëwee mu bañ a dem jëflante ak ñoom bu ci faatu xaje kii seen yoon ñëw ci. Mm-hmm. en tout cas lu mën a xew dana dem. Mm-hmm. am na boo xam ne loolu ci xaw a nekk. gis na loolu nag lu nag xëy na jàngale. alaa kulli xel tax na ñuy dem ak dikkalante. ba ñoom ñu décidé ne dañ koy génne. biñ ne dañ koy génne nag Cheikh Sidé moom ma la wax di setub Cheikh Sidé mu mag. Cheikh Sidé Baba moo gën a jamono teg sëñ Touba moo tolloo woon ak moom. Mhm. bu dee Cheikh Sidiya mag moom da ngay xam ne jiitu na sëñ bi tuuti. dëgg la ndax Cheikh Sidiya mag ak Cheikh Sidiya mu ndaw mi ñax Cheikh Sidiya Baba am na kenn ku dox seen diggante Cheikh Sidi Mouhamad. Mhm. Mhm. Euh, kon yàgg moom moo jamono teg sëñ bi. nekkoon nit ko am wàccuwaay lool ci àdduna surtout nag ci Afrique gi ñu nekk. jege woon tubaab yi dégg déggaloon ko lool. moo leen bokkoon na ci lim ñaan lim leen ñaanoon ñu leen Cheikh Ahmadou Bamba moom de bu sañoon ñu andi ko foo xam ne ci ronam lay nekk mooy ci biir réew mi nekk. junj la ne dana ko garanté. lu leen naqari du jóge ci moom feek mi ngi nekk ci loxoom. lim ci jublu boobu mooy kóllëre yu yàgg yi dox seen diggante. waaye nag ñeewante ko. bu métti. sëñ bi booba kenn bëggut mu demaat. bokkam yii am na ci ñoo xamante ni ñu ko jege ñoo xam ne moom ñoo bokk lépp dañ ne woon bu dee génnaat de ci seen kaw la ñuy jaar waaye dootu kenn dootu génneeti. ñeewante nañ ko. Mhm. âge bi bi mu yor booba. gis nañu géej gi ni woon. xam nga juróom-ñetti at yu manqué nga nekk fenn. Mhm. kenn fekk sa soxna nekku fa sa doom dëgg dëgg metti na moo tax ak delseem xar baax yi gën a mag ci lañ ko jàppe woon comme nag yàlla dogal mu dem ba del si génnaat moom du dem a am loolu ñoom ñoom ñëpp gis-gis boobu la ñu amoon ci moom waaye ala kulli xaal ba juboo ci loolu mhm. moo tax tubaab bi sëñ bi jaaraat fi mu baaxoo jaar jóge daaru marnaan mhm. jaar ngaabu jaar tuubaatul dem lu nga dem dar mhm. ndax foofay bureau ba fa lay jaar gisee ak ñoom bañ dogal loolu ba véridique bi mu génn nag mooy dañ ko exilé génnewaat ko mhm. comme nañ defoon ci géej gi rek yóbbu ko mhm. yóbbu ko mu duggaat ci looco ànd ak ñaari ndawi Cheikh Sidi yi ko doon jël si ndax wax naa la li mu doon ci ci dem gi dëgg la Cheikh Naawul Dada ak Mouhamed si Abdou Mouhamed Sidiya mhm. ay bokkam yu ko jege euh, dugg ci looco génnul réew mi waaye dem ba ci ca frontière ba mooy fa mu baaxoo jaare du sori na tey fa la toog waaj fa am fa ay fan ñu dog koo génn mu génn nag

tegtal bi koy gën a wane rek bi mu déparé bay dem ba dugg ci biir réew mi. Cheikh Naawul Dada mi mu àndal moo ko daan nettali. mooy mi ko mi Cheikh si di yebaloon day wax ne nee na bi mu duggee bañ tàmbalee dem mu dugg ci gileem gi ñoom ñu dugg ci geneen gileem. ñoom ñu koy wan ñoom ñu yi daal. suuf xam nga mu désert la bu rafet. beeñ ba mu romb bu rafet danaa leen taxaw leen bu ñu taxawee mën a suuf su jekk si de yaayoo na ñu julli ñu jaamu fa yàlla. wàcc bu dee waxtu wu ñu mën a jullee mu wàcc julli ñaar rakka. yoon loolu yoon wu dëng lool ci ñoom xam nga loolu day yàgg. day jël day jël pas-pas boog leer ñoom sax dañuy wax ne dañ cee mujj defee finaar mhm. <laughs> dañoo mujj wax ndeysaan wax ne du mën a jëkkewut ah, bu du ñàkk ñàkk mooy sabab si feeñ mhm. ku la bëgg gàtt la daanaka sax yàlla da leen a nam demeek ba ci sax ñi ko gënoon a siiw ci ñu ko daan jaxase ci côté wolof yi ñu ñu la ñoo doxaat li ñi la boo demee ci archive yi boo demee ci mbind mag ñi da nga ko ci gis bi la ñi ci ñaar yëpp muy géej muy jéeri ji mm-hmm. bi sababu zahir yi jeexee dafa dëpp dajeeg nag ndigalul yàlla suñu borom hmm. loolu danay feeñ ci sëñ bi bi mu daataa dem bu dee ci yoonu géej gi da nga gis yónni na fa maam Thierno Ibrahima Fati hmm. boo xam ne moom lañ soxlawoon xam nga loolu it kiimaan la hmm. waaye mu demee ba décidé xam nga ne wane na ne am mën na it ndigalul boromam ci dem yoonu murtani wi noonu la demee waaye yoonu murtani wi laneen dolli ku ci lu am solo loo xam ne sëñ Tuubaa moo ko nettali dane Euh, loolu moom moo ñu ci tekkil suñu laaj ñun ñëpp moo ñu mm. ci tekkil liñ ko doon laaj ñun ñëpp mm-hmm. dana képp koo xamante ni yaa ngi tëkkale ñaari tukki yi muy tukki géej gi tukki jéeri ji mm-hmm. kooku xumru la mooy ku yewwut la ku mel ni man la mm-hmm. du benn layal loolu daan ne ndax yoonu jéeri ji mu yoonu gànnaar wi yàlla da ko fay dara taxul koo jóg lu wut yàlla yóbbu ko fa ngir teral ko ak fay ko moo tax loolu day feeñ ci ne Mauritanie met neexoon na ci Sëñ dëgg la dem na ba dar di diir ba mu foora am am rek ñu autorisé ko mu dellu si waaye naqari wutoon ci moom li koy tegtale murtani ardu saalihin li ko suñ tudde woon suñ tubaab tudde fenn ardu saalihin ba xam nga ba pare dafa yàkkam wallaay bi mu leen joxoon mm-hmm. fonk leen lool mm-hmm. bañ naan al abraar la leen tudde woon mm-hmm. safaan bi nag la tuddewoon ñi ci des waa Gabon yi. Mhm, assuré waaye jaadu na. <laughs> dëgg la julli tekki yéefar kenn du leen yemale. xanaa loolu waral bàyyaatu fil barri ak sajara <laughs> mhm. bu dee sax sëñ bi da ko waxee noo xam ne moo gën a leer. Mhm. man zanna sayri. xibba aami ak sasin. ak sasin mooy tukki euh, bu mujj bi gànnaar. misla ma sayri sa aami jay sasin mooy tukki géej gi. sabata kawnuhu jahulan xumra bal huwa tatyibul ali lil umra. mooy ku leen bëgg a xamut yeewut. lu tax lam yëkku sayru ak sa seen mm-hmm. siwaa waa mm-hmm. man li yaqaara baax du wax an jaza mm-hmm. wala na jaza tukkib gi jéeri ji muy gànnaar du dara lu dul rek yàlla fay ma lu ma digoon dëgg la Cheikh Mourtala jàpp naa nag nga yóbbu ñu dafay fitnaal ak fi lay fayee du benn dëgg la Cheikh Mourtala waxtaan yi am na solo lool yoonu Mauritanie day yoon wu riche yoon woo xam ne li ci nekk ci jàngat ak luñ ci mën a jëriñoo daa bari euh, am na loo xam ne mënee su ko euh, dëgg ma li ci tukkib sëñ bi di ko jàngat te doo tëb laaj boobu te doo dugg ci laaj boobu mooy damaa gis ci tukki bi mu mu mu mu mu mu wëllërante ak borom xam-xam bu mag muy Ahmad Bun Baddi moom eh, lu tax mu ñëw jaraariya soppi tur tuddee ko biirul xayri àddunay dox bañ suul fa si Ahmad Bun Baddi moom beneen bi ki topp nga xam ne moom lay tëjee mooy xaadisatu tund muxsin bëgg naa nga dikkal ñu ci tund muxsin lu fa xew digganteem ak sëñ bi ak itam borom xam-xam yi nga xam ne bokku yoon ak sëñ bi tariixa waaye seede su rafet si ñu daan indi ci sëriñ bi boo ñu ci woon rek ñu ñu xam mën koo barkeloo ci waxtaan bi dëgg la euh, sëriñ bi moom Cheikhul Khadim bi mu duggee Mauritanie moom li benn bindkat bu siiw bu nekk Mauritanie wax dane tubaab yi de li moom ci ci jàngatam ca li mu wax lu yanu maanaa la biñ fi indi sëñ bi sabab yi bari na waaye li leen ci gën a ñor dëgg-dëgg jàpp nañ bu fa nekkee maa ngi lu baat bi may wax du fa tekki lu bari ndeysaan du fa feeñ mhm. ñoom dañoo jàpp ne rek li ëpp ci liñ jàpp ne war na ko mën a feeñal. Mhm. am na foofu ba noppi muy xam-xam muy ak wilaaya muy nangam muy nangam. déstabiliser ko rek. <laughs> maanaam. Mhm. tubaab bi di gën a leen gën a yitteel mooy du fa dolli ko ci wàllu googu. ca mhm. loolu dëgg-dëgg amoon na njëriñ kenn du fa topp lañ jàpp. bu ma nee way macha allah waykat Mauritanie ñoo dàq way ci ko tuddee woon. bu ma nee taalif ñun taalif yi ñu ëpp yi ñuy jëfandikoo Mauritanie lay jógee sax. sëñ Tuubaa Mara Jaam yi ci bari Mauritanie la ko jëlee. loolu lu ñu xam la xaatimatu tasawuf bi ngay dégg nga xam ne mooy masaal ko jinaan Mauritanie la jóge ka ko taalif Cheikh Madi Daali la naf xotti bi ngay dégg sëñ bi di ko tudd lu bëree bëri ka ko taalif Cheikh Sidi Muxtaar Kunti foofu la gën a jege lu bëree bëri ba ci euh, Muxtaar ibnu Buunal Jagani maanaam boo dellu woon ci delluwaay mi fa la jóge xam nga loolu ca naxu ba ca naxu ndeysaan sëñ Tubaa dina koy tudd ndeysaan ibnu Abba mhm. nu saxtu zarif bi sëñ Tubaa sara ci sarf ka ko mu tëdd la dëkk Moussa Tousa Riff nga xam ne da nga xam ne delluwaay mi ci bari foofu la yi cëm foofu la dëgg la doy na sëkk ko ko jàngal ma nga fa mm-hmm. wérdu wu muy jëfandikoo wérdu xaadir woo xam ne foofu la jógoon na ngay xam ne foofu kon moom jàpp naa ne rek mm-hmm. gis caaxaan jeexut bu bu bu li gën a xel mooy mm-hmm. moom am na dayoo boo xam ne nekk loolu moom bokk na ci na ki wax loolu la wax ci loolu wér wér la daat teg daan ne waaye day mel ne nasaara colon colon colon yi amalahum llahu bi naqidi maqsuudi mooy yàlla daa jëflante ñoom safaanu li ñu bëggoon mhm. comme dañoo Mauritanie ñoo gën a fonk ci Sénégal mhm. caaxaan jeex rek des mhm. ñu seetlu mooy gëm xëy na ñun niñu façon ni ñu gëmee daa wuute mooy Mauritanie am na borom xam-xam yu fa nekk yu bari am na ci ñu contrôle lool tasawuf boo delloo boo gën a yaatal sab gëstu da nga fa gis borom xam-xam yi Mauritanie yoo xam ne attaqué woon nañ tarixe yi gën a mag ci suñ Afrique soowu jant bi jamono yooyu ci wax bi kenn mënta dégg wax ju metti sëñ Tuubaa kenn mosu ko faa contre ci gàttal rek cent pour cent ñu ko fonk rek ñoo fa nekk benn borom xam bi ñu daan jàngal da daan wax ne Sëñ Tuubaa bokk na ci karaamaam ci murtani kenn musu ko faa contre Allahu akbar benn nga gëm ko mhm. jël li mu yor mhm. bàyyi la nga nekkoon mhm. wala koo xamante ni it bàyyiwut ma nga waaye wóor na la teg na sëñ bi foo xam ne fam fam teg sëriñam lay doon wala sax foo ko raw dinaa ko indi léegi Cheikh Ahmadou Mbedd mi nga wax léegi wala koo xam ne sax safaan bi doonut kuy gëm moom ab sëriñ wala tasawuf wala yooyu da ciy wax sax lu kenn mënta dégg waaye day mel ne Sëriñ Tuubaa da ko ciy seetee da koy jàppe mu daal da koy jàppe la daan ne yàlla musal na sëriñ bi moo doon jàngal moo ko wax daan ne yàlla musal na murtani ci ko ko weddi xam ne laa ko weddi mosu faa dugg loolu ñu ngi ko dund baax a baax ñun ñu fay dem léeg-léeg mm-hmm. euh, kon ba mu fa demee jaxasoo naag ña fa nekk mm-hmm. ñëpp mm-hmm. ñëpp mm-hmm. tarixa yëpp tarixa tijaaniya andi nga ci misaal kon naa ci yem boo bëggee dem ci des dana xaw a bari tuuti cheikh ahmad bin beddi ak natta ngoom ma cheikh ahmad bin cheikh abdul hafiz ñoom lañ daan wooye ak cheikhaani alam la woon ci ñoom bil xalaba boo ko déggee mooy cheikh ahmad bin beddi ak cheikh ahmad bin cheikh abdul hafiz nee naa la seen maam moo njëkk andi tarixa tijaaniya ci suñu wet gi yëpp moo demoon gisee ak cheikh ahmad tijaani fonkoon nañ sëñ Tuubaa lool jaraar yeeg yi ngay wax tey fa lañ leen denc ñoom ñaar ñëpp jaraar yi ak sarsaara soriwul dara fukki kilomètre matu ko sëñ bi sarsaara fa la jaar mhm. nekk na fa koor fa la njëkk woore mhm. may ya fa am bari na loolu ak ubbi ko yi fa la mhm. jote waratul maaxus day dëgg la dëgg la waaye bi mu jógee sarsaara jaraar yeeg la ñëw man la ne yekk yàlla it may yam fa may bari na dañuy wax sax na lenn ci nus ci seex yi wërdu maaxus yi nga xam ne mooy xafif jaraar yi dëgg la ko jote loolu naar benn kenn ci naar ci borom Mauritanie yi jegewoon sëñ bi moo ko bind mhm. ne jàpp na ne fa la ko sëñ bi jotee mhm. mu jaraariya euh, jaraariya googu bi fi sëñ bi ñëwee fi la waxee woon bayta mu si woowu ataaniyal xayru min rabbi bi takraari la si yama inde biiril xayri jaraaro mhm. loolu rek rëy na loolu yàlla may na ma yiw fu mu mën a doon surtout jaraariya ndeysaan moom na dëgg la Cheikh Ahmad bu Mbeddi moomu bu ma ci joxee misaal man naa yóbbaale kilifa dina yëpp man naa yóbbaale Cheikh Saadou Abiy mën naa yóbbaale Cheikh Sidé mii ci boppam mi ma doon wax mhm. mën naa yóbbaale ma chaax yi fa nekkoon yëpp yëpp yëpp ñu nekkoon ci tarix yi ci yëpp mhm. dane woon sëñ Touba ku jambaare la woon ku mhm. bari xam-xam lool dayob kaweef ci moom la ma ne am dane woon sëñ bi damay sàkk boo gisatee yonente bi nga nuyul ma ko loolu moom ci ñoom sëñ Moussa borom xam-xam yi lan lay tekki mooy nangul na ko ak wilaayam nangul na ko ne kuy gis yonente bi la dëgg la loolu fi la dara jamono yam dëgg la sëñ Touba ginnaaw ba bindit ko leetar bu am maana boo demee mi ngi ci téere yi bindit sëñ Touba yëpp mhm. di ko xamal ne ko yonent bi mi ngi koy delloo am nuyoo mhm. jox ko bicharaat bégal ko yu baree baree bari jox ko sax ay bichara ay mbégte yoo xam ne mi ngi jóge ci sëriñam Cheikh Ahmad Tijani mhm. yu baree bari tontu ko ko ci ay way yu baree bare bari bokk na ci alayka sallam allazi qad qaddam ak bayit yu am solo miinan naa boo ko mosaa gis surtout xam ne miin nga gànnaar loolu lay njëkk a wax ndeysaan ndeysaan alayka sallam allazi qad qaddam ak waaye sëñ Touba la te tasaarowut ci ñun fii ala ashirika wa ala qadamak alayka sallama allazi la yantahi ruqiyuhu lima ilay yastahi mooy sëñ Tuba yàlla yonente bi ki la jiital say bokk ashir say bokk ki yëkkati sa ndëgg mooy ki la yëkkati ba ca kaw mi ngi lay nuyu nga xamante ni moo lay yëkkati ba nga xam ne kenn gënatulaa kawe mi ngi lay dollem yow moom moom Cheikh Ahmad moomu delloowaat na ko yeneen bayit moom waaye loolu day guddal mhm. jotaay bi tuuti jërëjëf waxoon euh, fi lay mënee mhm. seere dëgg la Cheikh Sidi mii nga xam ne mhm. nekkoon kilifa lool. day nekk sukk ak kilifteef. mu mën a négocier ak tubaab yi bañ d' accord. ci ko sa yóbbu sëñ tubaab. fa jege mu garanti ko boole fi mu tegoon sëñ tubaab kawe na lool. Mm-hmm, dëgg la wa maa aybuhu illaa ibadatu rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaa'ihi jàpp naa ne Cheikh Sidi ku kawe woon la. Mm-hmm. ku amoon gis-gis la it nag ci tasawuf. tuuti mm-hmm. surtout ak mu jëm. ndax dëgg la xëy na jàpp na ne gis na ay kilifa tasawuf mujj maanaam li taxoon ñu samp tasawuf daan wax ne nekkuñ ci. moo tax sax amoon na ci gis-gis bu metti ci ñenn ñi jàppoon na ne daal dëgg-dëgg dañoo war a wax ak ñoom ñu delluwaat ci sunna mhm. te sëñ moom da ko ci woon mhm. li mu ko ci fukk luñ mhm. ko loolu lu kiimtaani la ci ko xam di noonu la meloon ñoom sax yemuñ ci ñi ëpp ci njabootam gi dañoo toppoon sëñ bi kër Cheikh Mahmadul Yadaali di borom xam-xam yu mag a mag a mag nekkoon ci tarixa Chaadiliya nag ñoom sëñ Tuubaa fonkoon ko lool ba jàpp boole ko ci sëriñam jël lu bare bare bare ci lim bind liggéeyaat ci waxuma la fonk sëñ bi waaye ak njabootam bu ja jamono mm-hmm. jaayante woon ak sëñ bi sar mm-hmm. sëñ bi daan leen liggéey loolu bare bare bare mm-hmm. ndeysaan ñii mu leen di jàngaloo xasaayit ñii mu leen di bindloo alxuraan ñii mu leen di dañoo neexoon baat nga xam ne dañ koy dañuy yor way arab yi nga xam ne dañ ci tagg yonante bi di ko jàngaloon nga xam ne keneen a koy muy dégg fu ne liggéeyloo na leen ci ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Sidi Ahmadou Lusumuhu ak Daymaani jaayante woon mooy xeeti naar yëpp gàddu naar yëpp Cheikh Ahmad bu Mbedd mi mbokkam mu ko jege mhm. Mouhamad Abdullah al Alawi lañ koy mhm. wax te mhm. ñun ñu gën ko xam ci wuldu Ubayda Rahman ziyaare naa ko ci lu yàggut fu sori la nekk rek moom ci njëkk a jaayanteeg sëñ ci la bokk taalif na ci sëñ bii ngeen xam lool an nafaxatul miskiya taalif na ci sëñ bu mag a mag a a mag boo xam ne da ko ciy way tuddi ko ad nazim nga day mel ne daal sëñ moom jeex jeexitam ci Mauritanie bari na lool. dëgg la dëgg la xam fu mu yem na. dëgg la la jàpp naa ne lu la ci nit wax. Mhm. la mu bàyyee gën a bari. dëgg la loolu misaal bi rek mooy di eh, diwaanu Chian ñi biñ koy waaye ni ca daari mhm. boobu de li ma xam mooy. Mhm. matut asakay lañ ko way foofa. am na benn benn yoo xam ne rek ay borom xam-xam yu siiw li ñu way sëñ bi mu ëpp waaye li ci yàlla nag def na ci sutura ma ngi fay des ba léegi. turandoo mi jàpp naa ne ñoo fa gën a bari ba léegi boo demoon wax naa ko nit rek ci lu yàggut kooku doon wax ne li ko yéem de mooy gouvernement xam naa day kilifa autorité tuuti ne ma daal jaaxal na ko. Mhm. musta gis gouvernement yi dafa seetlu toujours foofu. Mhm. ministère bu tudd Bamba nangam nangam. Mhm. ba bari na fa ma ne ko loolu moom du fa jeex moom. <laughs> tur yi bari na Bamba goo fa dégg sëñ Tuubaa lañ Xaadim bari na fa lool. Ah, bari na ñu koy tuddee nit te mosuñ ko gis. am amoon na général ko mos ñëw na fi ci général Bambul du bàyyi. ma ngi dëkk ca penku ba fu sori foo xam ne a waaye moom fi ne ñi ko tuddee ay waajuram ñi ko tuddee sëñ Tuubaa xamuñ sëñ Tuubaa mosuñ ko dégg Allahu akbar xam nañ ko ci dégg ak ak jaar jaaram ak naa nag ak taxawaayam bichaara yeneen sax mm-hmm. yu am te yu noonu sax dafa bari jërëjëf mbokk yi waxtaan waa ngi noonu ñu ànd ko nag ñu ànd ko Cheikh Mouhamadul Mourtada Bousso di borom xam-xam yéen miin ko lool ci réew mi miin ko ci bitim réew itam di teewal yoonu murit fu ne ci àddina bi ci ndigalul xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla ko fi yàlla bàyyi kon dañ fay yëkkati jotaay bi rek bismillahi rrahmani rrahim fastamsik billadi أوحي إليك إنك على صراط مستقيم